avril 2021 mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers Equivox TV nuyu nañ leen di am mbégte nag ak contentement rek di ànd ak saa su nekk fii ci Equivox TV ci seen journal de ren ma ci ànd à chaque fois ak ki nga xam ne moo di Babacar Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna Ami. yaa noos. man waaw maa ngi sant yàlla de mm. waaw. ak sa verre verre bi moo tudd nan Babacar.

dëgg. waaw voilà mbokk téléspectateur yi ñu dem seetaan revue des titres daal di dellusiwaat. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. lundi 12 avril 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu làmb la ñuy xëy tey dooreeti ko. mu mel ni ki likaay bi di sunu lamb tey fa mu xëy ñëw ci li nga xam ne nii moom moo war a am le 26 juin war a dox ci diggante Bombardier ak ka nga xam ne moom moo di Balla Gaye numéro 2 yëglekaay bi nee na la ak actée pour le 26 juin noonu la ko sunu lamb binde ci ay tubaab mu mel ni kon ñaari mbir daal seenub revanche wala seenub jàkkaarloowaat le 26 juin nag lay doon léegi leer na naan sunu lamb xëy tey jox nu booba xibaar leneen loo xam ne nii yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci wala am ku mu waxal muy ko tëgg yooju lamb muy Gaston Mbengue Gaston nag moom ci diggante Balla gay numéro 2 bu jóge ci Bombardier ci ku mu war a dajawaat mu diggante Eumeu seen wala Girdo wala Giri Bordeaux Gaston Mbengue daal xëy na tey wax lu leer nañ wala muy seen kenn ñi mu wujjee taxaw kanamam di ko laaj cent millions ngir dajewaat ak Balla Gaye nee ñoom seeni fukki xel ak juróom xalaatut lu mel ni ki noonu ndax xam nañu seen bopp te xam nañu ma xam loolu la nu yëglikaay bi xëy tey wax nu ko ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay bi di sunu làmb mel ni ki mbër moo xam tamit Gaston Mbengue moo ko tëggoon ginnaaw ba mu daane Modou Anta muy jéen kayre daa mel ni waa Medina tamit day maanaam wan nañ seen doom jooja ne ko fi nga dëkk moom am ngay mbokk te am nga tamit ay àndandoo ki kilifa mu mel ni ki waa Medina gépp a génn bër jàngal Bamba Fall maire ba nag moom wane fa boppam bu baax a baax a baax moom ma yilif bokk moomeelu Medina moom Bamba Fall nag yemu ca ndax jël na un million may ko Diène Kaïré ñu ne déet ne waay ca lay yem mu jël bàyyi Diène Kaïré di Boy Kaïré jox ko billet boo xam ne moo ko yóbbu Makkatal Mukarrama ñu foog ne Bamba fa lay yem Bamba ne déedéet du ma fa yem damay continuer ka mu doon bëreel daan ko muy Modou Anta te ku ne xam ne ne gel wàllam mu nga Medina Bamba Fall yëkkati ñeent fukki junni jox ko mel ni kon daal a mujj nañ ko ndàmp ka ko def nag moom moo di ka nga xam ne moo di Bamba Fall mel ni jamono jooju loolay am moom ka tëggoon combat ba teewoon na fa muy Gaston Mbengue mbir yooyu yëpp ci loxoom la ko Bamba Fall teg mu jox ko ña nga xam ne ñoo di mbëri ak seen i kilifa kilifa ak jën kayre moom di booy kayre nee moom xamul lu mu war a wax ndax xolam bu sedd ak itam lii nga xam ne nii daal maanaam xolam sedd na ci lool ak jëf ju réy ji moo tax booy kayre daal xol ba fees na lool feneen foo xam ne sorewul foofa ba tey nekk ci diggante Médina fas Colobane mu mel ni ki nag foofa la fa am moom moo di écrit bu bees bu ñu war a sancaat maanaam écrit ndakaaru gu war a ànd ak écrit Fass ñu tuddee ko Fass ndakaaru mel ni ki nag mbir yooyu ba mu amee moom mbëri ya nga xam ne ñoo nekkoon écrit ndakaaru yëpp moom dañoo lànk kandaare nenañ demuñu fa tey suba waxi noppi ba ñoom sanc nañu seenub écrit tuddee ko Colobane mbooloo mel ni ki daal kon soo bëggee dégg ñaar dëkk ñoom si kor yeeg képp koo xam ne daal am mbër nga woon presque ca ñu ca ëpp bokk boo bëggee dégg dëgg daal ñoom lank nañu kandaare ne nañ ñoom duñu dem ca Fass Ndakaaru ya tey suba waxi noppi ñoom daal fanu fas yéenee dem moo di kolobaan mbooloo loolu yëglikaay bi di sunu lam moo xëy tey wax nu ko mel ni ki ñaari mbër dong ñoom ñoo fekki boobu écrit muy ki nga xam ne moom moo di sibel ak ndóof yëglikaay ba moo xëy ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne nii yëglekaay bi ñëw na ci maanaam cees la ñuy dem cees nag buñ fa demee ku ne xam na ne di jaxate moo fa woote woon ci samedi ji combat bu doxoon ci diggante Ousmane Gandigal ak nga xam ne moom moo di Safi Dieng waaye daa mel ni Ousmane gaal daal soo bëggee dégg dëgg moom Thiès moo fay teg ndawal ndax fa mu jóge moom mooy Gandigal ga ca Mbuur ñoo fekk Safi Dieng ca ca dëkkam ca Thiès daan ko loolu la def keneen koo xam ne nii moom arène nationale ca quartier la ñu ko fekk daan ko moom moo di Cheikh super jamono ka ko def nag du kenn ku dul ka nga xam ne nii moom moo di capitaine dina bu yoof moo war a yoof daal ànd ak ñoom Malick ñaa fekk ci Cheikh super jamono aree national moo ñoom guy gi indi woon daan ko jël bu rëy rëy rëy Cheikh jamono nag mbir ma naqari na ko lool vidéo boo demee Equivox da nga ko fay fekk ba tey yëglikaay ba ñëw na ca keneen koo xam ne nii moom soo bëggee dégg-dégg arène nationale ren lambi simple ñeenti journée fa jot am ñett yooyu yëpp moo ci teg ab loxoom muy Fara Fara daal daa mel ni arène nationale moo fay dicté ay luwaam wane boppam maanaam bërki démb samedi la ko mujj a def final ba mu sequ nag door da koo gagné loolu yëglikaay ba xëy na wax nu ko keneen koo xam ne tamit dikte na fa kere ay luwaam ca poids bu ndaw ba muy poids léger mooy bu Boy Jules ma nekk ca Falaye Balde Boy Jules daal wane na boppam bu baax a baax a baax waaye àll bi tamit amoon na ay lambi simple kii di Batista numéro de tamit yëglikaay bi ñëw na ci moom ak itam la nga xam ne def na ko ko fa nga xam ne ni moom moo di ca àll ba yëglikaay yi ñoo xëy ñëw dina ko wax ba tey bu ñu demee ca Equivox TV moom boo bëggee dégg-dëgg tirage au sort ca Idaali Ñing ak journée ba génn na mel na kii nag mbir ya léegi leer na ku ci nekk xam nga ka ngay dajel loolu bërki dem nga xam ne moom moo doon ca arène nationale loolu mu TV ba tey ci Equivox TV keneen koo xam ne tamit tëgg na komba bu rëy rëy muy Mbaye Yékini mi ngeen xam war a dox ci diggante Cheikh Tidiane Niang ak nga xam ne nii moom moo di Ndongo Lo ñaari mbër tamit démb ñëwoon nañ ca journée mu ñaa ba ñu présenté leen public ba Mbaye Yékini moo def lu mel ni ki noonu loola nag mois de juin ca la war a am yëglikaay booba wala boog Equivox TV moo xëy dina wax lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi wala ca Equivox TV démb tam fa nga xam ne moom moo doon ca terrain gaal gi jax moo fa ñëwoon dëgg doon tëgg dernière journée balaa ñoo woor waaye ka nga xam ne daal moo di aada booy bawal moo fa def yëfi ñëw wala yëfi Messi ndax nag fa nga xam ne fa la ko libidoor yeggoon ak jëlli bu rëy ba mu ko daan moo yéem askan wa nekkoon fa fa doon seetaan waaye yemuñu ñu de ka nga xam ne nii moom moo di Tony Booker mbir moom tamit day lu mel noona la wan ka nga xam ne nii moom moo di ka nga xam ne mooy xale ba nuy wax Manga Ndiaye Manga Ndiaye daal ma dëkk ca ndondol njeejeng tamit ca finaalu lese ba moom la fa Tony wane daan ko jëli bu rëy rëy bu nu continuer dem record ka nga xam ne moom moo di Franc yëgle kaay ba di record xëy na ñu xam ne daal Franc daal mooy maître arène national maanaam daal moo fay teg ndawal di fa wax lu ko neex di ko fa def ci lit simple ñibbi lay def moo tax yëglikaay bi di record ne na quatre journée ñett yëpp Franc moo ca teg loxoom yëglikaay bi ñëw na tamit te digganteem ak Ada Boy Bawol combat bu métti ba ñu bëre kera ci arène nationale ba waaye fu mu mujje mooy Franc moo ko mujj a gagné yemuñu ca de ba tey yëglekaay bi nee na Franc daal loo ci mën a dégg rentré na ak ay faram loolu daal la Franc def Franc soit Gomis rentré na ak ay faram te fa nga xam ne moo parcelle waaye man Gomis limay may ñaawlu te réew mépp di ko ñaawlu mooy lu bon li nga xam ne moom la ñu gis démb arène national arène national bu ñu defar ngir ñu war fay toog di seetaani làmb muy neex ci yow ngay enjoy ñoo xam ne kenn xam lu ne ci seen bopp yi maanaam ñu ñëw fa daal bu sa mbër daanee nga dammi seet sànni ñu daan sa mbër nga dammi seet sànni moo tax nag damaa yaakaar ne xanaa ñi tabax arène national bi te tabaxal ku réew mi muy état du Sénégal lii danañ ci jóg jël ci ay sanction ba nga xam ne ëllëg képp ku gisati kuy yàq da nga ko artu ndax nag olof ne na ku bàyyim xët mu naaj mu nekkoon revue des titres ñu daal di ñëw nag ci journal suñu lamb Babacar ci xëtam bu njëkk tey lim njëkkee rek moo di euh, combat ki nga xam ne moo di Bombardier ak Balla gay 2 fi mu nekk nii pareel nañ ko pour le 26 juin waaw ñu ñaan yàlla rek yegg ci defe naa ne revanche la combat comme ni mu ko waxee acte boo xam ne acte mhm. ah, euh, li ñuy ñaan moo yegg seeg jàmm parce que defe ne ñoom ñaar bëri woon nañu ci la ko Bombardier daane woon nekk mhm. roi des arènes roi des arènes pour deuxième fois. Mhm. Euh, booba ba tey nag yàlla di def di def ba tey làmb boolewaat leen Gaston Mbengue suñu papa tëgg ko. li ñuy ñaan rek mooy yàlla nañ ci ñu bëree ko que le meilleur gagne mais xam naa ne daal bu ca yeggee moom làmb ju neex la. te itam nekkul combat boo xam ne man Babacar danaa fa xalaat ni ndax li tax mooy ñaari borom fit ñaari jàmbar Bombardier dellu ginnaaw te Balla Gaye de Lion lañ koy wooye kon defe naa foofu moom dañuy dajate buñ dajee xalaat naa combat ba day jeex <laughs> dëgg la voilà ba tey rek ki nga xam ne moo di Père daal di àddu ci ñaari mbër yi muy Gris Bordeaux ak Eumeu nee na daal moom parewul xalaatul sax fay li nga xam ne moo di cent million pour euh, ñu dékku ki nga xam ne moo di Balla Gaye de waaw loolu day Père Gaston moom xam nga ko moom Père Gaston moom suñu père ñu koy <laughs> nuyu di ko ziar moom moom buy wax moom du maas ay waxam day wax moom la mu <laughs> sentir et puis tamit loolu la waaw loolu la nit dangay wax li nekk si yow rek mhm. parce que jàpp na ne bu fekkente ne tamit dafa war a tëggaat dafa war a jël Balla Gaye su paree ci moom ji yokk Eumeu Sène wala Gris bu jàppee ne mhm. ah, tamit moom dama naan bu ko neexee parce que li tax mooy moom mooy xam na li jaadu li mu jàpp ne moo jaadu moo mbër yooyu tamit yàgg na leen tëgg moo mujj tëgg Eumeu seen mhm. defe naa kon foofa waxtaan wa wala coow du fa wëri laa fa parce que xamante naak Gris xamante naak Eumeu seen moom Gaper Gaston te yàgg naa tëgg làmb defe naa ne bu keroogee buñ ca yeggee mhm. ku ci ne xam na sa valeur mhm. ñoom xam nañ seen valeur te xalaat naa ne bu ñu waxtaanee mën nañoo déggoo te muy dëgg fële ca Médina sargal Diène Kaïré mu mel ni nag ay xéewal dikk na fa ki nga xam ne moo di euh, maire ba rek di Bamba Fall daal dina offrir un million à Diène Kaïré un billet de la Boy Kaïré ak deux cent mille ki nga xam ne moom lañ daanoon muy Modou Anta waaw def na lu rafet mhm. waa Médina def nañ lu rafet ah parce que Diène Kaïré doomu Médina Fass Gueule Tapée Colobane la ah defe naa tey su demee bëri ji combat bi mu doon bëri te bi mu koy bëri ji ku ne xam na ne boo fekkee da wax ci luwaawu sport mhm. Modou Anta mooy favori parce que la Modou Anta def ci làmb Diène mhm. Kaïré defagu woon ko kon Diène bu ñëwee chance boobu ñu lancé ko ko mu relever défi bi defe naa ne tamit jar na sargal xëy na moo taxoon waa Medina génn doon ko sargal ànd ak seen maire Bamba Fall un maire tamit dañuy xaar ci moom loolu parce que man Medina dama fa bëri ay tànk mhm. dama nekk ca marché ba di daan fa jaay di gis Bamba Fall ni muy duggee ci biir Medina du ànd ak ay garde corps du am protocole mook chauffeuram des fois nga gis mu wàcc biir marché tilim mu loolu moom dama koy wax muy koo xam ne maire la boo xam ne exemple la man ci li ma gis ci mhm, ci kilifa ko bëgg waaw wax dëgg yàlla te loolu tamit dina la dimbali ci sa commune dina tax nga xam problème mu commune bi mhm. defe naa kon loolu moo tax tey mu gunge Diène Kaïré ci sargal bi gunge ko rek ca làmb ja mhm. yëkkati un million jox ko ko parce que tamit loolu pour lan la pour jàppale ko la pour mu gën a défendre couleur Médina yëkkati billet Makka jox ko baayam Diène Kaïré tamit wala boog Boy ëpp loolu sax mhm. parce que tamit yàgg na défendre couleur wu gox boobu yaa mhm. ne mhm. dëkk foofu da koy soññ pour mu gën a góorgóorlu waaw ndax ndax li ci kanamam nag mu ëpp fuuf li mu paase waaw defee rek fële ca Fass Ndakaaru lañ ko bëggoon a fusionné nag mu mel ni yenn ca mbër ya d'accorduñ ci ba tax na dañoo dem rek migrer ci euh, beneen euh, écurie buy tudd euh, Colobane Mbooloo voilà. waaw que loolu moom amoon na ay xibaar ka ni ñoom mbër yu baree baree baree bari mhm, ñoom ñu dem foofu. Mhm. maanaam du ñu dem ci Fass Ndakaaru jooju parce que ñoom lool duñ ko def. Mhm. yaa ngi dégg loolu nag moo waral tey majeure partie ba ca mbër ya la ca ëpp. parce que su ma juumul ci journal bi ñaari mbër kese laa gis yu nangoo dem ca Fass Ndakaaru ji mhm. yaa dégg mais à part ñi des ñëpp mhm. ñoom ca Colobane mbooloo ba la ñu dem maanaam continuer ñoom ca lañ nekkoon sans écrit tudde ko Colobane mbooloo ah loolu nag am nañ si plein mhm. nit ki yaay xool dal sa xel te itam ñoom ñi ko def ay mbër la bëgg dara xëy na ñoom jàpp nañ ne ànd ak dem ca Fass Ndakaaru du seen avantage nit ki nag wala mag boog ami la dalum xelam kese moo mm-hmm. koy may yaram sa bopp rek dëgg waaye ba tey rek fële ca Thiès ki nga xam ne moo di Ousmane Gandigal il reste toujours le maître moom daal euh, lu fa teg rek mu daal di jël yóbbu waaw Ousmane Gandigal day xam naa ne moom loo ci mën a dégg mbërum dóor la moo xam ne mu jafee daan la mm-hmm. waaw loolu moom xam naa ko ci moom parce mën naa xeex ñeme na mm-hmm. te it mën naa bëri te itam boo ko jàppee mbir mu ndaw saa yoo ku séqi moom mënut a rampale mhm. bu fekk jógee Gandigal fekk saafi ca Thiès saafi ma dëkk Thiès ca Medina Fall daan ko ah moo lay wan ne kon Ousmane Gandigal ba tey fa mu ne woon jógu fa ñu koy féliciter di encourager saafi mhm. loolu mooy sport mais tamit di nuyu suñu tonton si di jaxate mi tëggoon lamb ji di ku baax mhm. ku yëg nit ku jox nit cër maa koy nuyu di ko jéglu nag si ñàkk teewaay bi xëy na lamb yi moo bëri woon ah, a couvrir wallaay la sim si di jaxate mm-hmm, lu muy def rek mu ngi ciy sentir Babacar daf ma ciy woo kon encore une fois xëy na li ci des li ci kanam moo ëpp bu soobee suñu borom mm-hmm. danañu ànd ak moom bu mu xam ne ànd ak moom wax ko Equivox moom ak Babacar ak lamb moom mm-hmm. am muy ndam loo xam ne lu leer nañ la parce que démb sëñ Modou Niang moo fa tëggoon deuxième journée ci lutte avec frappe ah, euh, yàlla dogal capitaine Dina bu Yoff daan Cheikh Super Jamono bu nekk école de li ma sa jàngat Super Jamono dama naan daa juum mm-hmm. parce que mbër xam nga balaa ñoo bëree mm-hmm. dañ leen di seet li ñu naan passé xool ku niin ku def la warul def ñu ne demal nga defaru ji warul protest daa ñu la nga takk ko yow loolu lépp arbitre def na ko ba pare mm-hmm. ba ngeen d'accord yéen ba mu léegi soufflé des léegi arbitre soufflé na ngeen di bëri jot ngeen a laalante ci xeex yow nga arrière ñu yaakaar na nga man dama foog dafa dafa gaañu mu arrière di génn ci bi mu arrière di génn nag te arbitre attewul adversaire am gëddu ko foofu mu dem ba li yàgg xam na mu insisté taxaw bi mu taxawee nag taxawaayam jekkatul adversaire am wàcc bu ko mu daanu te boobu arbitre sifflé bien sûr arbitre tasul combat bi après man bi ma bi ma ko dékkee micro laaj ko mu ne kii daa diw ma ne ko Cheikh est-ce kii bu diwoo yaa ko war a réclamer arbitre c'est le maître du bi ko passé visite kay bu diw woon moo ko war a wax mm-hmm. kon Cheikh foofu def na erreur de jeunesse mm-hmm. et un sportif da ngay tamit xam bu baax a baax li ngay def mm-hmm. loolu daf ci am solo ñu xam ne ñoom ay sportif la ñu mbëri il faut ñu xam loolu waruloon bu dee au fait mënoon na yëkkati loxoom sax signalé ñu non mais non non mais foofu même boo yëkkati sa loxo kon da génn génn ba mu doon def la waru ko jeex enceinte bi su génnoon dana ko laaj lu xew. mais nag da nga yëkkati sa loxo arrière ba mu neex la nga duggaat ci biir combat bi mm-hmm. waa ji daan la kon amoo la war a wax arbitre bi arbitre bi pour man gisuma erreur bu mu fa def man mm-hmm. dama part personnel parce que waa ji su diwoo du yow yaa koy réclamer mais au contraire arbitre bi moo koy réclamer te balaa moo soufflé seet na leen ba pare voilà def na erreur mm-hmm. Euh, fële rek euh, lutte simple ba amoon euh, fii ci Dakar Kaolack ak Fatick ki nga xam ne moo di Franc Boy Jules Baptiste Batista 2 Pape Waly Niane ñoom ñoo nekk vainqueur yi waaw moo lay wax ne bi moom jaxoon na mhm. ndax ku ne xam na ne arène nationale Fallou Ndiaye fa woote woon sargal euh, Yaxya Jom Yékini drapeau bool sans frontière foofu Franc ak Boy Jules ñoo fa teg ndawal mhm. lesa ba Boy Jules ak fa moo ko jël mhm. ki nga xam ne moom mooy Franc jël nuur bi boo demee tamit ci àll bi gis nga Batista tamit la mu def Batista numéro 2 xale bu ñu war a bàyyee xel nekk fii ci écrit ñoom bi fii Pikine ginnaaw raay xale bu am avenir macha allah Pape Waly Niane tamit gañe fa nga xam ne nii moom moo doon ci àll bi ba tey ki nga xam ne moom mooy dut saane muy vigan boo xam ne daal taroon na taroon na lool lool ci ay làmb ba mhm. démb ci dimanche ji noonu la continuer mhm. euh, foofu tamit làmb ah ginnaaw arène nationale tamit ku ne xam ne démb lit simple jax sa tëggun na ko fa nga xam ne moom moo doon ci terrain gaal gi mhm. waaye foofu tamit démb ami neexoon na lool lool lool ndax aada booy bawal moo fa daan ki nga xam ne moom mooy libi door ci daal bi jëlli boo xam ne man damaa sax yéemu ko yegg ak fa aada mujjeeg moom ma ne ko aada li nga def wóorul ah. ndeke aada la muy def xam na ko ma ne dét ne waaye tuuni jaar fële ah <laughs> man daal démb xale yi daal xam naa man xale yi gis nga li simple bi li simple bi boo yi ci ne mën nañoo bëree yow mi Ami Diouf laay lay <laughs> xale yi daal mhm. comme ay Ronaldinho kii Messi kay Ronaldo rek moom daal loo xalaat ci bëre dañ koy def fan nga féetee Ronaldo Messi non man nag Chris mooy sama jour parce que man joueur ah. man équipe bu Real rek laay mm. supporté parce que Chris dama gisul joueur bu ko dàq football déedéet kay parce que li tax dafa def lu kenn deful ah non mais li mu def kenn defu ko <laughs> mm. Angleterre Espagne Italie. Uh-huh. ak Portugal. Uh. fu ne gàddu fa la la. <laughs> gomis a ngi kaas de. noona kaas <laughs> li ma wax a am de kiris li mu def ku ko def. kon na ah, looloo am na la booy def ci làmb de muy yóbbaale. non yow ko dama laa gisul weekend bi yëpp ma de gisuma la de keroog samedi pare woon na ah de ah, est ce que ba nga pare. Ah, yow pare woon na waaw oto bi xatoon tamit loolu loolu <laughs> <laughs> ba tey li nga bëggoon wax doo ko continuer non acca a bu ñu jógee foofu rek ñu dem record ñoom euh, lañ fa fekkaat rek moo di franc moom itam ba tey rek ngi imposé wu ci euh, lamb ji foofu ca Thiès. Euh, non ca arène nationale waaw ca mhm. mhm. moom mooy PABC event si ñëw fa. Mhm. waa waa su waa ñëwaat fa. Fallou Ndiaye ñëwaat fa muy quatre journées ci lutte simple. trois yëpp moo ci teg loxo. benn dong la bokkul la jëlul foofu te boobu def ca defe naa participer woon bés boobu mhm. Zambala moo jël bés boobu kon buñ ne mooy arène mooy maître arène nationale moom mhm. ci lutte simple actuellement kenn du ko naatable parce que la fa am ren yëpp moo ko jëlagu xam nga fa quatre journée am nga di kontaan ci ñëpp rek di ñaanal ñëpp jàmm waaye loo mënti dégg balaa ngay tàggatoo koor gi nuñ koy gérer ñëw na de waaw koor gi day amul nes koy gérer koor moom amulu saar saar wi mooy xiif waaw li ma jaaxal dañoo ñëw tey ñi naan tey daal nekkuma ñi naan sama estomac waaw non xam nga Sénégal nag buñ ne koor gi suba la ginnaaw suba da ngay dégg ay estomac ay affaire ak yoo xam ne te yooyu yëpp ko jar ndax it nag nañu woor rek parce que euh, lu xam ne la xéewal la euh. mbégte la suñu borom mënu ko sant mu bokk ci farataam yi mhm. yaa ngi dégg mhm. kon képp koo xam ne am nga kàttan te wér te man ko mhm. na ko lislaam santaane ñu ngi lay ñaanal yàlla nga def ko ci bismillah rahmaan rahim mu jeex ci alhamdulilah rabbil alamin ku wérul tamit ñu lay ñaanal wér gi yaram ndax yàlla itam foog nga koy gis tegut kenn loo xam ne nii lu mu manul la maanaam ku wérul te mu leer na yow wéroo te diine yow xam nga ne wéroo la kay justifié wane ko woor loo weesu waaye nag bis boo wéree nga fay ko ndax wàccul ak jullit <laughs> kon ñu ngi balu ñëpp ak di ñaan yàlla daal <laughs> kooru jàmm di wax daal képp koo xam ne yaa ngi ñuy rek di la ñaanal jàmm di nuyu tamit ña nga xam ne ni ñoom ñoo di waa commune Ndondol parce que tax mooy démb xale bi finalu arène euh, fële euh, gaal gi ci ci poids bi ah Waly Manga Ndiaye xale boobu Njeejeng la dëkk te Njeejeng Ndondol la ne sama commune la waaw kon kooku maa ngi nii nuyu di nuyu magam Biram Ndiaye ak ah. yaay ndondol la bokk. ak yaay ci commune ndondol la bokk ay Ndiédiène. Mhm. Hmm, ay Sessène yooyu yëpp ay nguy ci Kaolack la bokk. <laughs> waaw yooyu yëpp foofu lañ bokk ah. <laughs> ay ay ay njamaan mhm. mbel xawul dëkk yooy yëpp mbel xawul yooyu yëpp euh, non mbel xawul sax mhm. waaw dëkk yooy yëpp daal ci commune ndondol lañ bokk mais ci ciy di nuyu suma maire bi nga xam ne suma xarit la te duma tàyyi di ko wax je suis fier mu ne nekk suma xarit mu maître Pape Sène mhm, la maire de la commune de Ndondol président comité sénégalais des droits de l'homme mhm. maa ngi koy béggee bu baax a baax di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal waa commune bi yépp mais tam di nuyu suma grand frère Pape Maysa Niane wala mm-hmm. Pape Mbomboy nekk fii ci RTS di mécanicien mais mm-hmm. tamit nekk transporteur di loué ay oto foofu maa ngi koy nuyu bu baax a baax mm-hmm. Pape Niane wala Pape Mbomboy di nuyu ay soxnaam madame Niane yi muy Kumba Thiaw ak Siga Ngom ñooñ di ay soxnaam ma koy béggee bu baax Pape waaw am na solo fi la ñuy daal di tey ci seen journal de l'arène <laughs> di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen numéro